sans limite TV votre site d'information mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax di leen ziar amaat na nañu mbégte lool àndaat ak yéen ñëw ak yéen ci naqar ak tiis bi nga xam ne moom moo dal suñu sœur di Gabrielle Kane Gabrielle Kane nekk féministe nekk itam ku ñu ràññee lool ci réew mi à travers social bi nga xam ne mi ngi koy def moom Gabrielle kan nag moo ñàkk waajuram bu góor doon wuyoo ci turu Alpha Alpha nag dem na bàyyi fi doomam bu jigéen bii di Gabrielle Kane alors Gabrielle kan sax ma ngi bind ci page Facebook am ngir rek euh, rafetlu ni ko baayam bi yare woon ni ko baayam bi euh, uufe woon ni jàppale woon ni mu ko taxawee woon yar ko yiir ko moom Gabrielle Kane ma ngay ñaanal ki nga xam ne moom mooy waajuram bu góor bile eh, di Alpha mi nga xam ne moom moo jiitu yàlla yërëm ko taxaare ko aljanna jéggal ko ay bàkkaaram mi ngi noonu Gabrielle Kane nekk féministe nekk koo xam ni ràññee nañ ko lool ci réew mi à travers eh, social bi nga xam ne mi ngi koy def moom Gabrielle Kane nag moo ñàkk waajuru bu góor doon wuyee ci turu Alpha équipe bu sans limite eh, TV ñu ngi koy jaal waajuram boobee xam ne moom moo génn àdduna moom Gabrielle Kane ñu koy ñaanal bu baax yàlla may ko xolu muñ liñ fi desee mu bëreek mu néew yàlla kàttanal te teg loxo bi jaay Seydina Mouhamed alayhi salaatu wasalaam mbokk yi jële ngeen jëf ci ànd bi ngeen doon a ak ñun sans limite TV votre site d'information